ñu ngi leen di nuyu suñu mbokk internet yi bàyyi xel snxibaar point com del si waay ngeen seen reportage yi nga xam ne ñi ngi leen koy amal tey jii nag yéen a ngi dégg coow li muy coronavirus bi nga xam ne la mel ne àdduna wala boog tas na àddina ñu xëy tey si suba dégg ni Touba am na première coronavirus première cas boo xam ne bu positif ku dafa am coronavirus mu jóge woon Italie dëkk fii diwaanu Touba coow li nag gën a bari wante tiitaane loolu moo tax snxibaar point com wàcc fii si ngir fassiyene waxtan ak population Touba bi ñi fi nek bi ñu déggee loolu lan lañ ci def ndax matukaay yi leen kër docteur di sante ñu ngi koy def am deet lolu lepp rek fi lay xewé moy snxibar.com da ngeen ñuy top ñu waxtan ak askan wi nak lañu gisé fièvre bu doy war bobu ñu naan coronavirus Cheikh da may top tay ñu doon def ben reportage ñi xey dégg ñu coronavirus premier cas amna fi Touba nga dégg dégg Touba ban jangal nga am wa sama jangal ci coronavirus bi dem ba léegi ma ngi dégg ñu né amna fi ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bu sel bi di Touba man nak li ci sama xalaat moy wa Touba nañu gën a fagaru gën a sensibiliser nit ñi pour ñu xam ni koy protéger pour ba jàngoro bi dinañ ci mën a moytu baax a baax parce que enjeu bi nag bëri na trop waaye man jàpp naa ne fi ñu yóbbu nekk fa quoi. man de jàngoro ma ci am mooy daal euh, sama xel nangu ko loolu ndax sama xel nangu ko loolu mooy ni nga ko euh, dafa dafa dafa dafa normal maanaam ku ñëwale siis ba léegi donc euh, ñu jox toog naan Amadou Diop itaal indi ko. tubaal dëgg koku man man defal luma ko jàpp naa daal loolu ay ay ay ay ay dóor matul rek man de deg naa ko waaye nag naan ñaan yalla rek ta li nga xamne bi digle nañ ko nu def ko li digle bu nu ko defee di raxas di top to gone yi yalla mën naa dogal mu yam fi baña a waaw rek ko ci jam ak salam rek tegal ko bépp rewum julit ak bépp budul julit tax suñu borom moko fi indi moko fi mën a kon moom mi ko fi indi nu ngi ñaan ci katanam ci man-manam mu teg ko ci jaam ak teg ko ci bépp réew ndax moom rek moo ci man dara. dugg lekk nga raxasoog sa ordre sewel ba set sangu ba set di sol sa yére yu set loolu daal lan ci xam bu fekkee ne dangaa liggéey ba ñëw poussière beeg yooyu yi nga liggéeyee nga dindi ko teg nii fóot ko ba mu set weer ko ci naaj yi ba mu wow nga nga nga. li leen sant pour xale yooyu yëpp yéen koy def. Hmm? Mani yeen ñi nga xamné yeen ay soxna yeen yeen ah est ce que li leen kër yep ah non koy jëm non ci jëm leen di ci gor gorul mom ko la ko digal rek sa bop nga <laughs> fagaru coronavirus bi ba nga xamné manam yalla nañ ci musal ba fi ci dëkk bu sel bi nañ ko mëna may tubba ko fagal yoy yeen wa tubba yeen ngi jël yeen docteur di wax sante yeen ngi koy def ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi dem ci gox yeek quartier di leen wax pour ñu mën a maytu lu mel ni ci dëkk bi ci quartier yi ak chef de village yi tooguñu de ba bañ ko déggee ba léegi ñun ñu ngi dem ci quartier yi ak ci euh, fi mbooloo yi dajee place publique yi di leen sensibiliser pour ñu mën a maytu coronavirus bi fii ci dëkk bu sell bi ci Touba. waaw ah, maam docteur yi damay xam ne docteur yi dañ dañ dañ tuuti état bi parce que euh, wàññi gi ñu bëri waa màggal li ma ni ma gëm mooy ci lañ doxal rek pour bañ ñu ñi bëri ci màggal parce que te mbooloo fa daje ñu bañ mbooloo daje mbooloo daje Tuubaa rek loolu laa gëm man. jël ndox war di sewal ak saabu ku dugg ci wanam raxasu boo génnee raxasu bala ngay tëddi nga raxas gone bañ set bu wàccee daara ji nga sang leen bañ set nga bàyyi leen ñu tëdd noppalu tañ bañ a génn dem fenn ci ngelaw li tañ bañ dugg ci kër yu bari yi buñ ko defee daal yàlla mënoonu cee dimbale waaw ndax sëñ moom dafa ñaan na ñaan na ci Tuubaa lépp. ñaan ñaanale koy aar lépp lépp lépp jàmm doo nga fiy njëkk moo fi mujj. loolu moom ba fi feebar bu nekkut it noo ngi ci woon. waaw ba feebar nekkut dañu ko daan digal naka jekk wax dëgg yàlla ndawi ndawi kër docteur yi moom dañu daan digal raxasoo saabu di raxas duus yi ba mu set wecc di balee kër yi di balé ëtt jigéen sax ba ngalen ñaan ñoom ñëpp daal ñu fagaru bu baax baax gën a moytu coronavirus bi ci dëkk bu sel bi daal parce que vraiment émas bobu mom fi ci dëkk bu sell bi moom vraiment bukkuñu ko fi daal am na ci àdduna bi ga ah, mais di diggante ñu ñu ñu wéx ñi lepp lépp li fa fayal tay di gëm neen tam tank fu sét la gëna mëna mën a gaan gaaw ñu tukku tàng Sénégal dafa tàng no li no no fagul li wax yëpp docteur mom continue ko docteur mom li wax mom ci xam lañ ko tek te tey moom duñu leen compter ci go ci ci ci fan yi bari ci maanaam wàllu wàllu faggatifu aara kaaraange sa sa sa sa jëmm ak sa njaboot lépp lu ñuy wax moom nangu ci parce que noonu waaw waaw noo ngi def leen man de waaw bàyyi yàlla man daal ànd ko yàlla du xam ne li ñuy wax ak nit ñi tey tamit duñ duñ lekk fu ñu kiyee gis nga man sama ndox laay wut wut sama ñoom sama bidon jëf mbokki internet yi bàyyi xel snxibaar point com reportage bi la leen jëlee ci mbaari Madiyana muy feebar boobu nga xam ne la mel ne àdduna bi ñu naan ko coronavirus ñu dégg ni Touba am na premier cas dégg nga xam ne ñoom la askan wi wax yéen a koy jàngatee seen bopp ah, waaye tamit gënaat nañu soññaat askan wi li nga xam ne que docteur sant na leen ko pour ñu def ko waxaat nañ tamit si jàngoro bi nga xam ne ñii nee nañ na ñii nee nañ amut waaye lu si mën doon daal na nga xam ne feebar bi moom lu am la di sant ñëpp di gërëm ñëpp Saliou Dieng moo nekkoon ci kaddu gi si caméra bi Cheikh Fall réalisation Babacar Diakhoumpa jox leen déjaj beneen reportage incha allah rabbi di leen wax ne ngeen gën a fagaru te xam ne fagaru moo gën faju jërë